bis bu amatee ñu jaarat moon foofu ma wax ko léegi mu leer bu yóbboo nag na préparer andi caserne gendarmerie biir assemblée nationale may dànkaafu Macky Sall nag parce que man su may wax ak Macky Sall damay wax Macky Sall góor noonu lay def du ma gaar waale moom day at ay nitam ne dem leen saaga bu paree taxaw ne mag ñi naan moom dafa yaru man su may wax ak Macky Sall wax Macky li muy ruuma naat bi mu njëkkee génn sénégalais di ko xaar foog ni Macky Sall lu am solo lay wax mu ñëw di wax wax yoo xam ne waxu daanu sareet la mu ci jublu woon yépp mooy gëbal su constitutionnel bi mu am Ismaïla Madior fan commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article 52 de la constitution loolu lay rumbanaat fi mu toll nii waxaat na ko benn télévision tugal président Tunisie bi foofu télévision boobu la ko demoon waxi dellu si daal di suspendre toutes les institutions à Tunisie Macky Sall barki dem bi mu demee Nations Unies tere boobu la dem waxaat ko dina xam ni Sénégal du Tunisie sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale moo tax ñu ne dañuy dooleel opposition moom ne na ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui loolu mooy yoon suñu nee séparation et équilibre de pouvoirs mooy moom ci boppam ay pouvoiru assemblée dépendrul ci moom moom waroon na am kerse di wax ci assemblée parce que mi ngi violer séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce qu'il fait moom jàpp na ni Sénégal da koo donn ci ay waajuram xam na ñun ñii ñëpp ay ay ay assujettis lañu moo tax mu jàpp ni moom mën na suspendre assemblée nationale bi daa di am tous les pouvoirs di gouverner par ordonnance loolu la gëm Macky Ismaïla Madior Fall ne mu teg fee nga xam ne musiba bu mu dugg nag moo ko fay dugal loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak Sénégalais yi moom mënul fecc li Sénégalais yi fas Sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy tiit li ko tiital ba muy bax loolu dina am assemblée nationale dina doon un lieu de débat boo xam ne mbir yi dootul ñëw rek député nelaw ba ñu ba ne heure vote mu jóg ne voté naa déedéet lu ñu àndit nañ ko càmbar parce que loolu la askan wi namm ci ñun waaye du ñu yem ci loolu ñun dañuy yóbbu dinañu proposer ay loi teg ko sur la table loi yu dëgër nag loi yu leer nañ yoo xam ne Sénégal da ko soxla dinañu déposer pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam gi sax da nga ko yërëm dinañu càmbar bi budget yi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leen li lii mooy intéret Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendrai mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafet